gën a a euh, maa ngi lay weddi Ziguinchor ci département yi gën a tuuti Sénégal boobu bàyyi bonkal moom bonkalu fenkat boobu ñu wër di manipuler Ziguinchor ba département def Sénégal bàyyi leen ñuy dox seen kaw maa ngi nii boo ma nee Dakar danga d'accord boo mënee Mbàkke mi mën nga Touba d'accord naa ne rëy nañu boo mënee Kaolack rëy na boo mënee Diourbel rëy na ñoo ko gañe boo mënee Kaffrine rëy na boo mënee Nioro rëy na mais lan mooy ne ngeen di dof dofu topp ab dof boo xam ne dañ ko pentu tudd Ousmane Sonko tekkiwul dara maire moo gën a ñàkk fayda ci mairie Sénégal yi moins de un pour cent de la population ñu naan ma ay ay ay département yu rëy comme Ziguinchor Ziguinchor sa waay moom moo ma ko xam ne ni mu demee la rek Ziguinchor yàgg na am ay particularité gagné ko kenn waru ko sax tiidaroo teew ren am nga taxawaay yore ba pare nag di mbubboo di woote bu ñu nee jàmm mu ne mukk Macky Sall dafa bañ Casamance pour Casamance yi ànd ak moom mel ni mooy seen avocat défenseur fekk day fet Macky du muy bañ a fet nañ ma ni nii la Macky bañ a Casamance seen la Ousmane Sonko mais dañ ko ragal yi ci yëpp presse bi dañ ko ragal di buy wax ñuy pat pat pat tapet ko ndax bi xaj yam xajam yooyu di saaga ay xaj bu saaga saaga bi loolu du leen du tax kenn nit ñi Sénégal am leen fulla Ousmane Sonko ëpp lu ci doole ñaari tàngal yooyu ñaari loxo ak benn bopp bañ ko bañ ko bëggee duma dafa dem ci benn magasin laqatu fa jour procès Barthélémy Dias Barthélémy Dias bi ko fi jëmee ci kaso bi ma ne avocat am daa woowoon kooku kooku kooku génn naa dama ne sport wow kooku ma ne sa 15 kilos tapel kaso ba ma ne dañuy bàkku di napp nit ñi Barthélémy Dias di naan bu ma gañewul Dakar damay bàyyi pour ñu wax yoo xam ni waa Dakar ñoo ñàkk fayda ñu falee koo xam day itam di bàkku seen kaw di xeex ay policiers buntu direction générale des élections naan dañu falsifier su liste di fen fuñ falsifier liste yéen ñoo dégg mu ne administration bi moo falsifier liste bennoo ba moom mu am problème pour ñu rejeter liste bi ñu seet ci bi ñu ne Saliou Sarr la Déthié Fall la mujj fi kon administration fan la falsifier liste Dakar kooku mérite na nekk député Dakar wala bay nekk meeru Dakar waa Dakar yéen yéen yéen bàyyi ngeen seen loxo mais Idrissa Idrissa faloon ko fi ah mais Marine Le Pen moo topp ci Macron ku gën a yées ci monde bi Marine Le Pen ku bañ africain yi ñi ñi mën nga gañe fekk yaa gën a yées mais boo amee ay tapper yu la wër ngay ngay avancé yore ay pistolet yu tëb di dal ku fi pistolet ñu pistolet sa ndey fii ci ku fi menacé ñu menacé sa ndey ku bëgg taal sa ngaa ñu sa ndey taal sa baay taal sa ñu bañ taal sa maam ci Sénégal gi dañ koo bokk sunu maam yi liggéey ko sunu maam yi Diouf lañ sant nag Ndiaye ak neneen sunu maam yi jóge wuñ bitim réew ñëw bëgg a taw suñu réew mi ay authentique am na ñu mën a daw génn Sénégal Sénégal mais ñu fee ni ak ñeneen Sénégalais yi mënuñ génn Sénégal kon sama bakkan laa jaay samay doom mënuñ daw génn Sénégal samay sët mënuñ dem Cap Vert wala wala Guinée Bissau dafa du ma nangu nag benn koo xam ne bu bu taagee nga daw génn réew mi nañu beneen réew te taal sama réew El Hadj Diouf ma jaral sama bakkan sama maam Fodé Diouf sama bàyyi bàyyi muy dernier buur Saloum naka ñooñu kenn ñoo wax ne diw mooy sama bàyyi moo doon buur fenn ci ban benn Kayoor wala Bawol wala Siin wala Saloum ñooñu bu leen neexee ñu bëgg taal Sénégal ñun ñi moomoon Sénégal démb tey soog a ñoo dul nangu nag. ay gan ay doxandéem di taal suñu réew nañ ko ñemee wax ku tàppet bokkoo réew mu toll na foo xam ni ku ci wax lu ëllëg billaay sa doom dina la jéppi ndax ay band ñoo bëgg a këf réew mi léegi napp Sénégal yi ba même journaliste yu bëri dañuy paat paat paat paat paat te ñoom lu leen neex ñu wax Sonko day saaga Macky Sall Guy Marius Sagna day saaga Macky Sall ñoom ñëpp parce que li bi jaar leen neex la ko wax saa si jël ko kenn ñeme ni li nga wax ëpp na waaye El Hadj Diouf bi mi leen di faj maanaam mi leen di faj bu waxee ñu ne ma gis ay saa bëgg a saw seen tubéy te bande salta yooyu ñoom Ousmane Sonko bu ñu ak gouvernement bi ay Mansour Faye ay ministre yéen yëg ko mel ne xamee saa si jël ko teg ko ne na lii Bassirou Dia nee na lii cibli cibli cibli j'aime pas les poltrons j'ai horreur des poltrons la samara bi bañ waaw lay lu ñuy dox dox ba yenn journalistes yi di pat pat yi yenn politiciens yi di pat pat yi heureusement tey ñu ñaf leen bàcc yi dégg naa ay journalistes yi taxaw naan cohabitation nangam nii ñooñu maa leen jéppi am na ñoo xam ne du sax ba teewuñu titre journaliste nañ dem jënd carte Pastef nekk taalibe Sonko bokk ci xaj Sonko yi di ko mbëwal dama bëgg sama réew ñëpp amandoo fulla amul journaliste amul avocat amul magistrat amul ingénieur na ñëpp ànd taxaw défendre Sénégal ndax ñi bëgg a def jihadisme ak rébellion ak naan dañuy taal bu ma gañewul nangam nii nii nga nii dégg nga dof boobu taxaw si naan du ñu nangu ñu sàcc élection yi ku mu ne sàcc élection Sénégal xanaa fenati na lii yéen élection yi génte ni ko mën a sàccee ba mu gañee Ziguinchor yëpp gañee bi jona yëpp gañee feneen ak feneen dañ ko koo bàyyee waaw du ñu bàyyee nag ñun li ñu gañee di ngi daal vérification bu tàppet ni ma mbaa doo indi mbaa doo indi fu ne tax ngeen lim fanweeri ngeen gañee ma ne ko bandi salté yi di wax la ñu gañee bandi salté yi ñoom ñu wax la ñu gañee ñoom am nañ droit bu la neexee ñu jubilé ñun ñu war a ragal ba du ñu wax waaye ñun man ban réew lañ nekk waaye réew ay tapé xanaa réew la jël laa tiir mais ay xale yu ndaw juddoogul danañu napp ay kon yàllaa dee xale wala ma xar gi xale yi juddoogul ba kii moo njaay ay bandi bëgg napp sénégalais ba duñu wax naan nii non non non imbécile ngeen baab ku fee mu daal Sénégal ñu ñu xoolal ñu uy uy uy <laughs> mais dama xamatul sama réew mooy ban réew léegi ñu wu ci réseaux sociaux yi di saaga ñi ba yenn journaliste ak yenn homme politique dañuy ragal sax Sonko ak bande yim mu àndal Sonko mooy chef de bande bande en chef. fi mu ne bu may waxee même yéen ci seen biir am yoo xam ne ñu ngi commencé di xool waaw kii moom parce que da ngay foog man man extraterrestre la ndax li may wane ni Sonko voyou la bande la tekkiwul dara. dafa jege ko ragal lan Sonko lan la est-ce que dafa mën a euh, nekk juróom-benn nit pour mën a poñe nit ci dóor leen dama bëgg dama bëgg dama bëgg journaliste yi laa gën a bëgg ndax maa ngi ñoom bokk liggéey ndax chaque jour may pare ñu ne wuy samay collaborateur ko ma ñu nekk ay tapette qui aime bien châtie bien boo gisee ñeen ngi di pat pat yi di raf raf yi bu ñu tuddee Sonko moom lu mu wax ñu ñu nangul ko ko te buñ koy fët ngeen di papate ñu bëri ci biir wax lu ko neex Macky Sall te du moroomam Macky Sall mi bëgg dem moroom du moroomam Macky du moroomu kenn dem seen kër ku mu la doon laa wax Macky du moroomu baayam du moroomu ndeyam du moroomu nijaay Sonko ndax ma sal cercle ba nga ci nekk président de la rebel rebel la di xamee <laughs> bu tekkiwul dara bëgg ñëw bëgg yëpp président Macky Sall kooku kooku bala may si man sax nji bi waxal ci micro yi journaliste yi ñoo ko taaj place bi ko yow lan yow dañu fen si noonu liggéey di fen di fen di fen impôt bañ jàqale sa place mënoo denc benn secret fi noonu liggéeyee yow ñu rajee la ngay lambar lambar ci mbedd yi di wër di fen ak taxawal ko manipuler tagg bëgg def Macky Sall moo romb lu nekk wax ko tekke woo dara démb tekke woo ko tey du sa bàyyi du sa maam ma su tekki dara ci réew mi soo bëggee Macky Sall mi tekki ba nekk président du Sénégal yow doo nekk sax xanaa maire Ziguinchor bi bàyyi loxoom la yow mënoo nekk sax chef de village nit kuti yi sax ñoo la tane xaj yi ñoo la tane maire de Ziguinchor ku ma ne Marine Le Pen nekk na maire France Italie nekk na président Allemagne ci ñooñu du ñu ay référence Bokassa nekk na président Idi Abi dara nekk na président nit nekk dara wala gañe dara taxul nga nekk ni ku baax Sékou Touré ñaata Guinéen la rey mobilité de Sékou ndax ko ñu ko Zaïre taxoon na mu baax bàyyi leen topp di koo xam ne am benn moment mais Iblis dafa bëri doole dafa tax mu baax ñaata nit la yóbbu safara ñaata milliards nit kon Iblis dafa ba tàccoo ba Iblis xam nga ni Iblis nag Ousmane Sonko ñoo bokk ñoo bokk baax xam nga moom seytaane moo groupe am Ousmane Sonko mooy premier seytaane mooy mooy Iblis mooy maamam moom Iblis la dama bëgg ngeen xam ni kon dañoo gañe gañe bu rafet sur quarante six départements yi am Sénégal fanweer yi ñoo ko moom li ma naqare mooy benn jigéen taxaw fii naan ma département yooyu comme Ziguinchor ay waay ay waay ay waay waay waay journaliste boobu ku mu yàpp Ziguinchor kay nekk département bu dee <laughs> Casamance yëpp sax dafa dee dañ ko dañ ko dagg ñetti ñetti ñetti région Casamance ñetti région la léegi waaye bàyyi leen di bàyyi leen lu gëral bu am kii genre yooyu ñu gañe tey nii am fuñ gañe rek waaw c'est la démocratie nit ki bu ko neexee mu tànn dof jiite ko ay dof yore nañ ay réew ay reykati nit yore ay réew ñu fal leen ci ñàkk xam waaye yàgg bawul dara ñàkk a xam olof Njaay nee na ñàkk a xam li waral li waral bëri na ay bu ñu xamoon sàcc bii Sonko fenkat bii Sonko jaaykati suuf bii Sonko bi mu nekkee domaine sàcc la woon kon ñooñu lañ bëgg a jël jolle réew maa ne maa ci soo bakkan laa ngi def suma bakkan ndax un sàcc sàcc fenkat manipulateur di menacer ay groupe de presse ñoo groupe de presse bi moo gën a tàppe léegi moo koy tarbiyu moom dafa bay ay ay ay ay méthode méthode dictatoriale ni muy nappee gars yi ba gars yi ko xaj di ko mëwal di ko raayal loolu ça ne passera jamais fi c'est un voyou dirigé par le voyou en chef Ousmane Sonko que le Sénégal ne tombera jamais entre leurs mains. Le Sénégal de la Dion Ngoné Latyr. Diop. Ce Sénégal de El Hadji fera face pour sauver la nation, pour sauver cette jeunesse, pour sauver l'avenir de notre pays. Nous avons besoin de stabilité. Nous sommes un pays pauvre. Mais Sonko est un populiste. C'est comme s'il si pouvait donner un emploi à tout le monde. Comme si le Sénégal était un pays développé, riche. Et il joue sur la pauvreté des Sénégalais. Sénégalais, réveillez-vous. Ces populistes-là, comme les Guimari Sagna, les Sonko, les Barthélémy c'est des populistes. Mais c'est des incapables. C'est des incapables. ay mbokkam dégg nga. am na sama mbokk. mais nee na suba day wàcc ci terrain bi de. am na ci droit fu ñu wàcc jëm. ci terrain bi. intéressé wuñu duñ ay moromam ñun weesu topp ndawuñu kenn. il n'a qu'à descendre de faire ce qu'il veut parce qu'il a Mais Dakar, Dakar n'est pas le Sénégal. Il faut jubiler. Nous, nous allons jubiler à Dakar parce que nous avons gagné sur le plan national. Nous allons jubiler à Ziguinchor, nous avons gagné le Sénégal. allons jubiler partout. Le Sénégal nous appartient. Le Sénégal n'est point la chasse gardée de Barthélémy ou de Sonko. C'est le Sénégal de Macky Sall. D'abord, le Sénégal des El Hadji Diouf. Le Sénégal des bons Sénégalais. Le Sénégal des vrais Sénégalais aussi. Et le Sénégal est en marche. Et il sera défendu par son avocat, votre fidèle serviteur. Oui, il fera face. Il défendra ce pays, quelles que soient les conséquences. On nous tue, mais ils nous descendent point. C'est la devise de notre vaillante armée qui a massacré et balayé toutes les bases rebelles. C'est ça qui fait mal aujourd'hui à, à, ce rebelle en chef, Ousmane Sonko, qui dit que Maki n'aime pas la Casamance, parce que Maki a brûlé, a massacré toutes les bases rebelles. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko ne peut plus supporter Macky Sall dans son cœur. Parce que Macky Sall, après ans de rébellion, vient de mettre fin la rébellion pour que le, vive le Sénégal dans la stabilité, l'unité et la paix. Merci. accélérer le dossier et que Ousmane Sonko aille le juge d'instruction pour nous parler de l'affaire Agissar. Moi, je suis avocat d'Agissar, je peux pas entrer dans les détails. La loi m'empêche de le faire. Mais lui, doit nous édifier dans le cadre d'un procès public, public, contradictoire, il va s'expliquer et les Sénégalais sont pressés d'assister à ce procès qui va être un procès historique. Est-ce que Sénégalais mën nañu xam lan moo tax mu yàgg noonu procès bi mu yàgg. Demandez à Dieu pourquoi il a tué Samba Sall, <laughs> le juge qui chargé du dossier. ci juge bi la merci merci. ci juge bi la wala ci juge. non pose question. pose question booy. Ah. je n'en sais rien. Sonko est présumé innocent. waaw bàyyi waaw comme toute personne arrêtée. toute personne arrêtée est présumée innocente jusqu'à son jugement définitif. Je, ne sais pas si il est coupable ou pas. C'est le juge qui le dira. Il dira le droit. Il jugera. Soit il sera acquitté, soit il sera condamné. Et c'est prématuré d'en parler aujourd'hui. Attendons le jugement. Je vous invite tous à venir nombreux assister à ce jugement de M. Ousmane Sonko qui fera face à une Adissar belle, chrétienne. jéego ba. étincelante. très taquine. alors très sûre d'elle. pour que jaillisse la vérité. enfin la vérité.